waaw jërëjëf mbokk mi alaakulli xaali amaa nag lu aju ci gént ay xar yoo xam ne dinañ dugg seen kër nga yëg ni ci gént gi yow danga leen di rendi loolu nag li muy tegtale ci wàllu gént lu am solo lay doon waaye mbokk yi mën nañoo jël numéro 78 443 75 27 ñi nga xam dañoo bëgg ku leen firil gént wala ku leen seeta wala sax bu dee firi gént yi nag képp koo xam ne woote nga wala nga envoyé vocal. dafa am addiye joo xam lañ ci joxe pour nit ñi bay ci xel baax ndax dañuy sonal ci message yi bari lool sax te jot gi bari wu non ala kulli hali bu dee ko xam nak mm, da nga gént yek ne ay xaar yu bari da dugg ci sa biir kër wa mbolom xar na nga yek ne mu ngi ci barap loolu bax na day tektale am ndaje rawati na ndaje mo xam ay mbir lay doon xayna biñ ci am cër moy ndajem mbooloo moo xam ne bu egsee di nga ci gën a sonn wala di nga ci am cër ba tey ay xar yu bari yëg ne nga ne ñu ngi dugg ci sa biir kër nga leen di rendi danay tegtale looy sàkku di ko jot waaye ci anam bu metti wala ci anam boo xam ne dana bari ay jafe-jafe wala ay xat-xat incha allah.